mbokk waa internet bi ñuy suivre à travers partout dans le monde entier rawatina suñu chaîne bi ñu naan ko 221 people ni ñu ko baaxoo de def ak sëriñ sépp tey dañoo del siwaat fii seet si suñu wëllëre di suñu sëriñ bu baax ñu koy duppee euh, di koy duppee sëriñ Babacar si borom ndar sëriñ Babacar si duñ ne borom ndar si nag xal dina jëm ci Saint-Louis Euh, bokk ci ñi nga xam ne dañuy gérer pharmacie du ñuy pharmacie bokk na ci pharmacien yu mag yoo xam ne pharmacie traditionnelle lañ koy dubbee pharmacie yoo xamante ne ci ndar ñëpp xam nañ ko doon pharmacie yoo xam ne yu siiw yu mag ay sëñ di lay dal ci 221 people. macha allah rabbi di la dolli ziar di nuyu tamit euh, sama mbokk bi nga xamante ne mooy Mohamed di la nuyu yow Cheikh macha allah kontaan seen émission lool kontaan tamit si nit ñi. toujours ni ni nii laajte ak soxla suñuy émission ak tamit bëgg toujours ñu leen di dimbali si yoon bëgg tamit lépp di leen dimbali tabaarakallah te macha allah di ñaan yàlla seen télé bi yal na yàlla yokk tabaarakallah bismillah jërëjëf euh, sëñ Babacar si borom ndar niñ koy duppe doon euh, koo xam ne aussi day gérer ay pharmacie yoo xam ne pharmacien traditionnel yu mag la du man nag comme ni ma koy waxee rek ñun doo gisee ñu lay jël ak a jëlaat nit ñi ñoo koy laaj clients yi mën naa ne ñoo xam ne waa internet bi la liggéey nga liggéey dañ koo gis moo tax ñu naan joxaat ñu sëñ Babacar si sëñ Babacar si sama première question nag dama koy wéer ci wàllum gàmmu ne ku sëñ Babacar si sa xel jëm ci tiijaan yi côté surtout loo xam ne bokk na ci wàllum Tiwaawoon ak fépp lu bokk ci biir dëkk bi naka gàmmu gi macha allah rabbi di kontaan si samay taalibe yi di kontaan tamit ñi nga xamante ne ñu ngi bitim réew gis naa seen envoyé li ma envoyé si gàmmu ji gis naa tamit euh, teral bi ñu teral si gàmmu ji wala man mën naa ni wax ni sama turandoo muy sëñ Babacar kontaan na lool ci loolu tabaarikàllaa te di nuyu tamit sama sëriñ Pam Malick macha allah rabbi ma nga xamante ni am na yërmande yu doomu adama yi di jàppale doomu aadama yi kontaan si moom lool tamit tabaarikàllaa di kontaan si yéen tamit rawatina seen tele bi nga xamante ni mooy télé askan bi askan bi yëpp moom la ñuy jàpp di ko seetaan muy am njëriñ yoo xamante ni yu leer ak yu wér yu muy jox doomu aadama yi te macha allah di leen ñaanal jàmm ak salaam te xam ne nag jóge nañ si gàmm bu neex tabaarakallah ñaanal nañu bépp jullit ak bépp tamit ki chrétien ñu ngi leen di ñaanal yoonu jàmm képp ki nga xam dafa tabat yal na ko yàlla may wér ki nga xam dafa feebar tamit moo xam lu mu mënti doon ko problème kaso yal ko yàlla tijji tabaarakallah jërëjëf waaw macha allah. jërëjëf euh, sëñ Babacar Sy euh, ñu nit euh, ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ginnaaw bés bu tedd boobu ñu génn di weeru gàmm bi ñu ko doon def fan yi passé damay dugg ci sama ñaareelu question du ma ne ñaareelu question nag mën naa le doo gisee ñuy defaat beneen émission bi te yàggut noonu. ni hmm. mbokk internet bi ñoo ñu koy laaj. ñoo ne il faut di nga dellusiwaat ñu defaat émission bi surtout lu bokk ci wàllu zulmania bi nag kaay ñu naan zulmania bi xaw ma loo ci def mais tawfeex lañ ci gis njariñ kese. fii ba bitim réew ñun may woo dina am il ñu defaat ko te li def bëgg nañu nga yokk ko mu gën a bëri ndax li ko soxla bëri na wàllum journalier bi xam-xamu di ñaan yàlla xam nga am na yi nga xam-xam yoo xamante ni muy xam-xamu sunguf muy xam-xamu ren muy xam-xam yoo xamante ni neexula tudd si tele bi yoo xamante ni aussi tamit yàllaa ñu ko may te tabaarikàlla mu nekk loo xam ne lu yàlla nangu la ak loo xamante xam boo xamante ne amul dara loo xamante ne lu suñu borom di sikki sàkk suñu borom may ñu si yoon bu jub may ñu si yoon bu leer tabaarakallah macha allah nit koo gis nag am na àndandoo boo xamante ni mooy tax mu jox la tuuti nga gis si barkeel nit boo gis am na loolu am ñi nga xamante ni seen àndandoo dafa leen ubbil bunti am ñi nga xamante seen àndandoo da leen di tëj seen wërsëg am ñoo xam ne seen àndandoo da di yaatal seen i wërsëg dafa bëri façon moo tax nit boo gis am na rawxaanu boppam. mais xëy na tamit yàllaa ñu may dooleel ñu loolu tabaarikàllaa ba képp ku ñu jox garab yàlla def si barke boobu indi ñu client bi mu kontaan si yéen ni diw dañu soxlawaat nga invité waat. ngeen ma la dog foofu sëñ Babacar si ci wàllum sulmania bi doo gisee xam-xamu ñu del si di koy kii client yu bëri dañ ñu woo ndax dañ ne dañ cee gis résultat def li nga ci def ni ko waxee def nañ ko noonu mais noonu lañ ko gisee moo tax ñu ne il faut ñu kiyaat ko pour nga yokk sa loxo. waaw macha allah xam nga tey lépp di barkelu nit ñi di kontaan si nit ñi maanaam euh, Cheikh yow tey li ngay gis nga am xol bu set di ko wax mooy Mouhamed gis am xol bu set di ko wax xam nga nit ñi dañu bëri façon gis nga nit ku bon dama lay expliquer lu bon rek lay gis si nit suy wax sax ak buy déglu sax lu bon lay xalaat lay xaar pour nit ki wax am erreur mu mu dugal si lu bon loolu gis nga li ma la wax mais nit ku baax lu baax rek lay déglu si nit day déglu si sa jëfin mu baax moo tax ñu baax ñi nga xamante ni ñu ngi lay woow dama gis résultat yu mel noonu ak ñi nga xamante ni da leen di gis toujours ñu lay wax jàmbat naan la sañ diw bi sëñ Babacar si laa bëgg nga jëlaat ko émission sëñ Babacar si moom fa dëgg yàlla télé bi suñu man moom xam naa ni télé bi sama télé la ndax parce que tant que maa ngi ciy def résultat tant que maa ngi ciy def lu neex nit ñi di def lu wér télé bi sama tele la te tabaarikala te loolu rek laay ñaan yàlla ñaan xam nga naa la wax benn wax bu am solo gis nga man tooñ suñu borom moo ma gënal fuuf yàgg naa la koy wax tooñ nit ndax nit mën nga ko jéggul mu bañ la baal mais suñu borom mën nga ko jéggalu mu baal la te damay ñaan yàlla lépp lu may def lépp lu may def si suñu borom moo xam ne ma juum ko maa ngi koy jégalu mais nit ñi moom lépp lu may def li nga xamante ni dafay day wér ma jox leen lu wér incha allah rabbi bu ko defee bu nu amee résultat expliqué waat la ko tabaarikallah comme noonu rek laa ko bëggee. Hmm. tabaarikallah euh, ci sëñ Babacar. ñu bëri ñu koy laajte euh, pour nga dolli ko po yi ndax doyet li ci def gis nañ ko léegi mbóot bi nekk ci biir il faut ñu xam ko lan moo nekk ci biir ndax gars yi fi mu ne sonal nañu ne il faut nga dolli ko po bi gën a bëri gars yi mën a ñu bëri ñu ci am mën ci am. waaw xam nga tey po yi da leen koy jox du sakkan ñoom ñu ni. bi nga leen ko joxee ñu utiliser ko benn yoon nga gis ñu nga jox leen comme pot biscuit yi nii wala pot yeneen yi nga xamante ne day raxas biir am ñoo xam seen biir yi day tilim yàgg naa la koy wax dañu am ay li ngay li nga indil tilim boobu li nga indi maanaam biir gis nga bu yàggee tilim day mel ne rek néeg bu tilim salte bu ne mën na fa dëkk gis nga biir bu yàggee tilim mooy indi ndoxu siti mooy indi jàngoro kojoor mooy indi kurbat siti mooy indi tànk yi metti tànk yi yi lu ne mën na koo indi moo tax nit ki dafa war a toppatoo wér-gu-yaramam mooy indi ay ballonnement hémorroïde externe yi ngay gis tabaarikàllaa maanaam nit ki lépp loo gis te nangul toppatoo boppam nangul raxas cëram feebar yu ne mën na koo am maanaam moo tax ma leen di jox biskulu ñu si gis seen bopp di gis seen résultat même tamit feebaru tëli yi ngay gis tamit salte biir sax mën na ko indi. tabaarikal ci wàllu musulmaan yi côté feebar yi que lu mel yu métteeg yooyu di néew yi. waaw macha allah wax nga lu am solo. tànk yi métti di néew yi. te am na si benn kaa bi nga xamante ni jot naa ko gis si télé bi. Mhm. bu ma juumul. waaw mu mel ni temps yi ñu ngi ci waxtaane ñu koy tuddee père Balla père Balla mu mag ma tànk yi ñu ne dee neew yi di génne lu mel ni dëtt est-ce que côté bi feebar bi zulmanière bi am na lu mu a xam nga père Balla moom mbër buy yàgg dox si géew la mbër buy yàgg dox si làmb la mën na dëgg soit liggéey mën na dëgg tamit soit ndax moom wax na ko ndax moom nee na wër na kenn mënu ko kenn mënu ko wax feebar bi. nee na bi mu dalee du wër nee dem na hôpital hôpital te kenn mënu ko wax feebar bi maanaam. bi mu demee ba si kanam tànk bi commencé génnee mbër kooku ñaari façon dina ko def. muy muy bi nga xamante ni mooy benn mun nga dëgg liggéey sa tànk di génnee mbër rek yaa ngi dégg ndax liggéeyu bon rek lañuy ñuy suul ci géew yi ak liggéeyu bon rek la ñuy suul ci bi. Mm-hmm. moo tax aussi tamit moo tax ñuy tere jigéen ñi nga xamante ni ñoo koo xam ne ëmbeegul ñuy tere muy dem làmb di gis ngem mbër. wala di gis dara ci mbër ay téere loolu da koy tee am doom moo tax ngay gis jigéen ñu bëri tamit tee am doom ci côté yooyu nga gis tamit jigéen buy seetaan làmb te am ah, moo xam ñu moo xam ni exemple ameegul doom yooyu ñu naan la mag ñi loolu dañ koy tere Père Balla nag boo gisee lu mel noonu ñaari façon yi koy joxe yi mooy benn bi mën na nekk ndoxu siti bu yàgg ci yaram ji boo xamante ni bu demee ba yàgg si yaram ji léegi gis xam nga waxoon mos naa la wax naan la ndoxu siti bu yàggee si sa yaram day day ah, mooy moom ndox bu tàng bi ñooy ànd ak deret bu dee bi day jaxasu sa yaram mooy tax muy xuural ay bëñ di damm bëñ ñi seen bopp yi di tàng ngay gis ñi seen biir yi fu mu toll di metti mm-hmm. ngay gis ñi seen ndoxu góor day gaaw ndax parce que ndox bi day woyof nga gis ñii fu ñu toll dañuy ngelawal ndox ndoxu siti mooy yàq yaram ngay gis ñii kurbët la ñuy am seen yaram yi day xasan lool waxoon naa la ay produits yi ma siy def yooyu yëpp macha allah rabbi suñu borom barkel na loolu tabaarakallah may ma si kàttan bi nga xamante ni ak pouvoir bi nga xamante ni ku ma ko jox ku ne doo ko réccu kooku ma ngi si sant suñu borom aussi tamit euh, di si tamit di gërëm sama turandoo sëñ Babacar bu baax bi mi nga xamante ni mm. mooy suñu wasila mooy suñu lépp tabaarakallah mooy suñu sëriñ lu ñu am lu ne moom la tabaarikàllaa aussi tamit di la wax lu am solo maanaam loolu mën na nekk dëgg liggéey lu mu si mënti doon bu soobee suñu borom bu ñëwoon am problème boobu wax ma ko bu soobee suñu borom ma wan ko yoon tabaarikàllaa ndax tànk bi feebar bi niñ ko gisee su dem ba dox ko daa mel ni neew yu beeg yooyu mu ne mën naa dem ba mën na koo indil yeneen gàllankoor te du seet see yenn sëriñ yi nga xam ne yàlla may na leen lu bokk ci wàllum paj ñaan comme sa zulmania bi nii nga xam ne yow nee nga day faj lu bëri te yaatal te client yaa ngi koy laajte. waaw ñu seet si la doo ko ci defal tawfeex. macha allah li nga wax ko Cheikh lu am solo la ndax parce que ñu bëri ràññee noonu samay garab xam nañu samay garab. ñu bëree bëri siiwal nañ ko xam nañ ko tuddee macha allah rabbi ma leen di tamit euh, di leen sant bu baax ñu nekk ñu baax may ma teraange bi nga xamante ni si gàmmu ji tey li ma teralee samay gan yëpp ñoom ñoo tax wallahi la azim te aussi tamit euh, di la xamal benn affaire gis nga liggéey sax tànk boo xamante ni si wàllu poudre zulmaniya ndax lii dafa am baatin bi si ne boo gisee lii dafa am baatin du bu si nee du sunguf bi kese de mais baatin bi moo si ëpp solo. mais am na ñoo xam ne sunguf la ñuy gis mais baatin bi man laay gis man su ma koy jox nit lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti ma koy jox nit li si nekk moo ëpp solo ak barke bi ak baatin bi ma la jox man moo ëpp solo loolu li si nekk nag ma xam ko boo ko jëfandikoo comme ni ma la ko waxee nga defee ko comme ni ma la ko waxee bu soobee suñu borom di nga si gis résultat bu soobee yàlla am na solo jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Babacar dañuy gën a xuus yaatal ci suñu biiri question euh, mu bokk ci wàllum ñu bëri nga fay pharmacie trop trop trop te yëpp ñu ngi dox. Mhm. loolu lu ko war lan moo ne ci biir. waaw gis nga nit si lépp loo mënti yëngu da ngay bëgg sa bopp bëgg sa bopp maanaam bëgg sa bopp mooy di nangu sangoo bayre di nangu ubbi sa bopp di nangu muslaay mm. ndax parce que cat ak lamine ñoo bokk tey si tey yow ñaan nga yàlla say abonnement di yokk mais ñaanoo yàlla sa abonnement di wàññeeku te yàlla nañu si yàlla musal. Mm-hmm. nit noonu la noonu lay demee nit koo gis dafay ñaan yàlla évoluer euh, kii maanaam nu ñu koy waxatee sax. yokkute mm. léegi nag bu fekkee yokkute boobu la bëgg. Mm. maanaam tey day sang yaramam di musal yaramam si lu bon ndax am nañu bët noonu yi lay xool. tey nga def trace bu yàqu rek ñu siiwal la fépp yàqal sa der. moo tax gis nga nit da ngay aar sa bopp de un man tey teraange bi ma am yépp. aar nangu aar sama bopp nangu ubbi sama bopp bayre mu loolu moo ko may tabaarikàlla di sant suñu borom bu baax a baax a baax am na solo am na solo ci ko côté pharmacie ni ma leen ko waxee bëri nañ fa trop euh, fee di Ndar di Saint-Louis mais moom ay pharmacien moom macha allah comme ni mu ko waxee moo tax képp ko xam ne bëgg nga ci loo xamante ni yokkute la mu bokk ci wàllum bay rek lépp dégg ngeen ko ci biir mais dañ ciy jël comme exemple lu ci bokk mais lu mel ni bisu bi dañoo gis ne foofu dox na trop tamit ñaa ngi koy laajtee. waaw xam nga gis nga li ma lay wax rek ndax ñoo xam ni ñoom dañu dem ba gis loolu maanaam ku jël bisu kulu bi essayé woo ko nangoo ko jël comme traitement. waxuma xam nga ñoo xam ne dañuy ñëw di essayer waxuma kuy essayer de boo essayer mën na lay raxas te raxas la nii nga dem douche normal après mu arrêté comprendre nga waaye bu fekkee da nga ko nangoo jël traitement normal comme ni ma la ko waxee bu soobee suñu borom salte bi nekkoon sa biir yëpp lay bale ba mu set xoolal même boo doon jooy télé danga nga siy gis sa bopp ndax parce que biir mooy salte mooy tax sa biir di tàng mooy tax foo toll sa yaram di tayal biir bu saltee nag. mooy tax ngay gis ñi ñuy am mauvaise haleine ngay gis ñi seen tànk yi di neewi ndax deret bu dee bi mooy yi seen kii bi ndax foie bi ni mu doon dëbbee di filtre lekk yi salte yi du ko mënati dafay mel na rek euh, kii bu fatt day mel na euh, ventilateur bu am ay mees mu fatt tëw a daw day indi tàngoor tàngoor boobu mooy tàngoor yaram maanaam par misaal rek par exemple rek laa lay jox euh, waxtaan bi daal tabaarakallah mais ñi may waxal. xam na nañu bu baax li may wax lan la tabaarakallah. Mhm. jërëjëf jërëjëf sa sëñ Babacar Sy. Euh, ñu jeexal ci beneen euh, question rek mu bokk ci wàllum bay ndax dégg ngeen ko ci biir yi wax gis ngeen pharmacie yëpp bëri nañ dara mais gis nga pharmacie yëpp ñooy dox wàllum bay bu sof saf est-ce que sëñ Babacar Sy mën ah, moom yaakaar naa waroo ko werante moom macha allah loolu moom. dem naa bay liggéey seen télé ngeen gis si man li tax ngeen may jël si seen biir tele ñuy liggéey ndax man defe naa ne sëriñ yi ngeen mën a invité ak sëriñ yuy taxaw seen wet yépp man xam naa xamu xaw ma xameewu ma leen si caaxaan macha allah man gëm naa ni yàlla may na leen waaye gis nga barke yàllaa koy def si doomu aadama mun nga tuuti lool suñu borom def si yow barke bu kéemtaanu maanaam lu si des barke la ak lu yàlla nangu mais mën ñu bëri mën na ñu ngeen di invité. sëñ Babacar si doomu wala doo gisee ma ne la est mën nga bayre bu saf saf daa am bëri ñu ma woo déema ne ma du dee bayre rek bàyyi la ko moom su ngeen gisante maa ngeen déggante dina def nga gis côté bayre damaa dégg ñu bëri na da nga cee taxaw. macha allah est sax doo ñu dóoral bayre. non yéen moom yéen moom sama tele la am la sama télé bi. du ma ko bàyyi ginnaaw. dëgg yàlla te aussi tamit euh, rawatina ñu yàgg lool ñu gis ñu gis ñu ñu ñu ñu xamee ñu tamit euh, fii si 221 people te aussi tamit euh, macha allah bëri na télé yi ñuy wow tabaarakallah mais ñun ñoo préféré fii ndax ñun seenu dëgg la ñuy wër ak lu dëggu la ñuy wër dégg de maanaam man li sama sëriñ di wax rek muy sama sëñ muy sëñ Pape maanaam euh, nee na nit ki lekk ku mu tax nee na lekk bu mu tax bu mu nee na lekk du suur nit geste mooy suur nit wax ju am solo. nee na lekk du suur nit geste mooy suur nit. aussi tamit mu xamul ñu lenn tamit mu ni bërigo bu fees du yëngatu bërigo bu fees du yëngatu mais bërigo bu feesul nag mooy yëngatu bi bëri kër ci kër waaye man bayre bi ma lay defal. bu nit ki ñëwee soxla ko. bu soobee yàlla ni mu ko bëggee dinañu ko amee noonu bu soobee suñu borom wallahi laa jërëjëf ana looy eh? Euh, li may tàggu li may tàggatoo mooy macha allah di leen gërëm di leen sant te di rafetlu tamit seen teewaay ak seet si bi ngeen ma seet si ma sonal leen lool si dérangement bi te yaakaar naa ni moom li askan bi bëgg ak li askan bi li ñor askan bi moo leen ñor. di ñaan yàlla seen télé bi yàlla def ko télé bu mag a mag a mag man tele laa koy wax ndax parce que man dama xam ni ëllëg si biir bu soobee suñu borom ak li ma saxaar ba gis ko yéenay raw seeni morom bu soobee suñu borom te yàlla na ko yàlla def tele bu rëy tele bu mag te bu soobee suñu borom yàlla baax na jërëjëf.